alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafaahu alfatixi alxaatimi ma aclaahu wal aali wa saxbi wa man waalaahu qasida ji ñu bëgg firi tey daañ ko fekk ci diiwaanu Cheikh Sukayri ji alaarifu euh, billahi abul abbas sayidi ahmed ibn alhaaj alayashi sukayrij alxazrajiyu al ansaariyu néew na fànn gu mu bindul ci fànni xam-xam yi li mu tagg Cheikh Sidi Ahmed Tijaani radiallahu anhu fooguma ne am na ko ko ci tam tagg yonentu sallallahu alayhi wa sallam fooguma ne am na ko ko ci dab dundu dundu goo xam ne xawma dundu gu ko gën barke ndax qaadi la woon di jàllantu ci dëkki maghrib yi daan dem sax bitim réew waaye boo xoolee intage ilmi day xam ne dëgg-dëgg barke am na alaaji Ibrahima Ñas mu ne barke du jëmm waaye lu ne ñu xam ko barkeem yegg na ji bari na mag muñ xam Sénégal doonte mag moomoo ko féete mag ci at ijaasaal na la ni mu ijaasalee Cheikh Alxaaji Ibrahima Ñas ak magam maam Xalifa noonu la ijaasalee seen wayjur wu tedd wa Alxaaji Abdullah gis naa tamit ijaasa bu rafet mu defal Cheikh Alxaaji Malik murasalaat yi mu defante ak njabootu Cheikh Alhaji Malick ak njabootu Cheikh Alhaji Abdullahi noonu ànd ak téeméeri yi mu defante ak xulafaaw Cheikh Tidiane yi ci àdduna bi moom daal buñ ne tariqati kenn du xasida ji nag mi ngi ci diwaanam bu ñuy tuddee an nabaxaatu rabbaniya fi l amdaaxi tijaaniya daa ko fekk ci alfatx arrabbani fi ma madaxa bihi lqutbu lmak qutbu tijaani aw fi ma mudixa bihi lqutbu tijaani nee na xasida ji nag kenn ci muqaddam yi moo ko ko ndax moom li ma waxoon ci Cheikh Alhaaji Malik radiallahu anhu ne buy woy da ne dafay génne ci poosam Cheikh Sukayrij dafa mel na noonu la kenn du wax dafa mel ni sax waaye noonu la meloon ci fànn gune nag woy ak ci woy bokk na ci li tax xasida gi ràññeeku daf ci dugal ñaari bayti ibn al arabi sayidi cheikh al akbar ibn arabi al xaatimi fi mu demee ba yëg ne ñal gu na maqamam xatmiyatu ba wéy ko te aji woote ñu jógee ci yàlla woo ko xamal ko ne ko li ngay woote yow de ki ko moom di Abul Abbas la ma nga war feeñi ca ama naqshi muy mille cent cinquante feeñ ci mujj jamono Seydi Ibn Arabi nag di seet boobu ba gis ne Abul Abbas la ba gis ne ama naqshin muy mille cent cinquante lay feeñ ba gis ne faas lay nekk ba gis ne ba gis ne xam nga ibnu arabi sidi ahmad tijaani ci benn mashhadam fekk mu ngi xuus ci xaqiqa al muhammadiya laaj na mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax fii wali mos na fa agsi gannaaw bu ko laajee kan ci wàllu mm-hmm. ñoo gën a rëy mbir ci sa xeet wi ba yonentu waxat ko ne ko sidi abdul qadir al jili ak sidi bin arabi al xaatimi bu mu ndax am na ku mos a agsi fii mm-hmm. yonentu ne ko am na wàllu yoo xam ne xuus nañ ci xaqiqa bi mm-hmm. ba jot fukkeelu maqaam bi mënatuñoo dem ndax euh, tàngaayu tajalliyaat yi mu ne ko waaye ñaari sëriñ yi ma la tuddal ñoom ñëw nañ ba ci wasatal maqaam yi ba ci digg maqaam bi mënatuñoo dem mu ne ko mu fi ma yegg nag mu ne ko fi nga yegg kenn mosu fee yegg ndax Cheikh Tidiane dafa dem ba géejam mm-hmm. takkoog géeju yonantu sallallahu alayhi wa sallam moom rekk moo xuus xaqiqatul muhammadiya ba mu jeex moo tax moom rekk am xatmi yitu waaw mooy boroom xatmiya mooy boroom katmiya te Cheikh Sukayrij nee na moom moo dugal ñaari bayti Ibn Arabi yooyu ci biir qasida ji ba pare soppi xaafiya la ndax xaafiyatu ibn arabi eh, daal yàlla moom xaafiyaam nekk noon wala nga ne xaafiyatu ibn arabi daal la xaafiyaam moom nekk noon ibn arabi daf ne bina xatama allahu alwilayata fantahat ilayna fala xatma yakunu laha baadi wa ma faaza bilxatmi alladi li muhammadin min ummatihi wal ilmi illa ana waxdi moo tax mu ne moo moo soppi xaafiya bi tax soppi guñ jublu la mu ne ida rumta an taxwaa bi naylil amaani alayka bi qutbil aalamin attijaani ida rumta ndem sàkku nga ndem bëgg nga an taxwaa ba nga am bi naylil amaani an taxawaa ba nga laq an taxawaa ba nga cëtu ba nga cëtoo bi naylil amaani am say mébét soo bëggee am say mébét yëpp alayka na nga taqoo bi qutbil aalamina jiitu mbindeef yi attijaani kii Cheikh Sidi Ahmed attijaani lu tax mu ne laqad xasahu almawla alkarimu bima lahu aqarra bi fadlin kulla xibbin wa shaani laqad xassahu daf koo jagleel al mawla yàlla tabaraka wa taala alkarimu mu tedd mi moo lay wan ne du jëfam waaye karamu yàlla la yàlla la sopp bi maa ci loo xam ne aqarra lahu saxalal na ko ko bi fadlin ci ngëneel kullu xibbin bépp soppe wa shaanin ak aji bañ ngëneel li ko yàlla may ñi ko sopp ak ñi ko soppul yépp saxalal nañ ko ko te nee nañu alxaqu ma shahidat bihi l aadaahu dëgg buñ demee ba noon seede ko booba fës ga ëpp na bihi xatama allahu alwilayata fantahat ilayhi walam yablug li uliyaahu thani baytu bu njëkk baa ngi mu ne bii ci Cheikh Tidiane xatama la tëjee allahu yàlla alwilayata wilayatu gi fantahat wilaaya daal di daytalu daal di yem ilayhi jëm ci Cheikh Tidiane fa wilaaya yem Cheikh Tidiane fa xàgg walam yablux ak gut li uliyaawu jëm ci kaweeg gi saanin ñaareel Cheikh kaweem gi wala kaweem yi keneen ku moom yeggut ca mosula texe mm-hmm. wa ma faasa mosula am bil xatmi ci xatmul wilaayatu mm-hmm. alladi ki nga xam ne li muhammadin mooy xatmul wilaayatul muhammadiya ñeel na yonentu salallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kenn mosu ko am siwaahu kunu Cheikh Tidiane loolu nag bi irsin ndono la minu ko tukkee ci yonentu salallahu alayhi moom moo ko donnee ko ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne yonentu a jot njubbaxtanu nubuwatu nekk aynu nubuwati Cheikh Tidiane mooy jot njubbaxtanul wilaayatu nekk sax di aynul wilaayati loolu nag tuula zamani ba yàlla bindee ba bi lépp di jeex lay dox wa kama aarifin billahi bayna alwara daa maratiba hada alxatmi bacda tanaadi fa nuudiya ma hada almaqaamu li gayrihi wa hal ahadun fi alawliya kattijaani wa hal ahadun fi alawliya lil awliya kattijaani waaw fi alawliya ila waaye day bañ woy bi yàqu wa kam aarifin kam bëri naa aarif mën kam gi daf koy bëril wala lenn aarif la bëgg a wa kam aarifin bëri na aji xam billaahi yàlla bëri waliyu yàlla gu dem ba e, gis may yu rëy ya ko may bay na la waraa iddaa ko woote na maratiba xatmi martabaayi cheikh tidiane radiallahu anhu mi xatmu bi baada tadaani gannaaw jege gum jege yàlla ba foog ne yegg na foofee fa nuudiya wooweef ko ne ko maa haada al maqaamu déet mi le maqaama li xayrihi ñeel ku dul Cheikh Tidiane maqaama mi kenn xamut ko ku dul waaji de wa hal ahadun Cheikh Sukayri mu ne maa ngi laaj wa hal ahadun ndax am na kenn fil awliya ci wali ka Tidiane ku mel ni Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu taala wala waxal gi laa jug dàq la wala ahadun déet kenn mm. fi l awliya yi ci wali mm. ka tijaani di mel ni Cheikh Tidiane boo ci wax baax mm. bu dee laaj la laajug weddi la laajug dàq la waaw lu tax mu ne sara sirruhu fi kulli ratbin wa yaabisin ila an badat asraruhu lil iyaani sara roogaat na sirruhu mbootam Cheikh Sidi Ahmad Tidiane fi kulli ratbin ci lépp luy aji tooy wa yaabisin ak lépp luy aji wow képp kuy dund mbaa ku lépp lu tooy mbaa mu wow mbootam Cheikh Tidiane moo ragaat ci moom ilaa an badat jëm ba feeñ sax asraar waay mbootam li ci jano dem na sax ba mbootam na bootut ndax mboot bu ca ñëpp tegee bët dootut mboot waaw wajuudun lahu ammal wujuuda wa lam yazal yaumu bi jatwa kulli naa in wa daali wajuudun moom Cheikh Tidiane ak tabela wajuudun wala walahoo ñeel na ko moom Cheikh Tidiane joodun ak tabe goo xam ne amma matala na al wujooda am gi li yàlla bind yépp tabeek Cheikh Tidiane gi matala na la maanaam ni nga xamee ne yonentu sallallahu alayhi wa moom mooy al wujudu thani di séddale nga xam ne lu dund rek yaa ngi dundee ca leeram Cheikh moo ko wuutu ci mbootam ci bépp aji am moo tax mu ne wa joodun mooy tëbbam gi rek wala wa ñeel na ko joodun tabe goo xam ne amal wujuda matale am gi walam yazal mustaddan yaum di matale bi jat waa kulli naa in ci may ak jëriñ bépp aji sori wa daanin ak aji jege maanaa kum neex ak kum naqadi ku sore ku jege madadu Cheikh Tidiane ngi matale na la jant bi moom gannaaw yaa ngi ci suuf si mu neex la dana la leeral mu naqadi la dana la leeral mu neex la dana la woolum fóot naqadi la dana la woolum fóot mu neex la dana la indil naaj mu naqadi la dana la indil naaj kon nag mooy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu huwa al-bahru lakin qad xalaawa bi sirrihi huwa dul buxuuri wa imtilaau al-awaani huwa moom Cheikh Tidiane al baxru mooy géej lakin wante xat xalaat neex na maanaam bu ne mooy géej man nga wax ah, bu fekkee ne mooy géej gi ñëpp di naan géej ñun liñ ci xam bu bëree ndox it ndox mi fay sa xorom lu neex a mu ne lakin wante na xat xalaat moom géej gu neex la mooy géej de waaye géejam gi de moom safut xorom fa neex moo tax wa bi sirrihi ci mbóotam fuyuudul buxuuri bëbbug géej yi wamtilaaul awaani yi ak feesug ndab yi min al buxuuri al buxuuru quluubul aarifin akaabiril aarifin ah wal awaani quluubul awliyaay maanaam Cheikh Tidiane mooy géeju wilaayatu gi nga xam ne Euh, géej yu mag yi moo leen bëbb bañ fees dell te ñooy akaabirul aarifin mooy woy mag yi xamkat yàlla yi ñi xam yàlla tey tey tey tey tey kilifa ñi ca gën a mët ñooy géej yi wala waa ni wali yu ndaw yi it moo leen feesal kon moo feesal géej yi moo feesal ndab yi waaw daa waaye mu ne bu leen ma sikk sikk leen lawbe bi waaw Cheikh Tidiane moom ku nekk istiadaadaat bi yàlla def ci sax xol rek lay jëflanteeg yow bu fekkee xol bi yaatu na ba mën a jël lu toll ni géej ah mu def ko ci bu fekkee ni ndab la toll moom lañ ko sant mooy feesal rek bu leen ma sikk sikk leen lawbe bi lawbe bi mooy yàlla tabaraka wa taala waaw moo tax mu ne fa man da alladi fi lxalqi yajxadu fadlahu wa min sadrihi tajri tajri buxuuru lmacaani fa man da alladi fi lxalqi yajxadu fadlahu wa min sadrihi tajri buxuuru lmacaani fa man da alladi ana kan fi lxalqi ci mbindeef yajxadu mooy ñemee weddi mooy mën a weddi mooy sañ a weddi fadlahu nga neelu Cheikh Tidiane wa min sadrihi te ci dënnam kat tajri lay dawe buxuurul maani géeju xam-xam géeju maanaa yi lépp lu nit di ci dënn ba la la la la jóge koo xam ne nag li nga xam yëpp yàlla nga ko jaarale ci moom mu yàgg ci yow ah yonentu sallallahu alayhi wa mu ne sama borom nee na abdi lam yashkur ida lam yashkur man ajraytu nicmata ala yadayhi sama jaam santut ma su santut ki ma jaarale sama xéewal ci ay loxo kon nag cheikh mooy albarzax almaxtum c'est l'intermédiaire par excellence lépp ci moom lay jaar mu segg li warta aksi mu téye waaye diw gi nag mu baax nde lante noo du téye diw moo tax mu ne ah, kon kan moo mën a kan moo sañ a kan moo sañ a ingrat envers Cheikh Sidi Ahmed Tijani te par lui yàlla di séddale yëf yi fa man de ladi ana kan fil xalqi ci mindee fi yajhadu mooy sañ a weddi yajhadu mooy mën a weddi yajhadu mooy ñàkk jom ak ñàkk ngorog weddi fadlahu nga neelu maam Cheikh Sidi Ahmed Tijani wa min sadri te ci dënnam bu rëy ba kaar hmm. te jiri lay dawee bu xoolul maani géeji maani bi taaji qabulin tawajjathu inaayatun wa qiidat lahu kullul ula hmm. kullul ala ngay wax bi inaaniha baytu bu njëkk bu mooy ula waaye bi ala la bi taaji qabulin <coughs> wala nga ne tawajjathu bay firi taqdim daf ci am hmm. waaw wax bu tàmbalee jaar ak majrur rek am na taqdim wala xasr la boog te bu dee xasr taqdim la tawajjathu dégg nga solol na ko mbaxanaam buur wala tawajjathu solol na ko inaayatun inaaya yàlla tabaraka wa taala moo ko solol bi taaji qabulin mbaxanaam buuru farwu jar waaw ah. qabul mooy faruja waaw lu ko lay mooy faruja waaw qabul mooy yàlla seetu sa dara noo mën a mel mu nangul moom nag yàlla def koon nangu te seetu dara moo gën a sell waaye loolu taxul de yàlla moom la neex rek mu tànn ko machi atom ah, ah na ko rek tax mu ne tawajjatu solol na ko inaaya al inaaya rabbaniya moo ko solal lan bi taaji qabuli ni naaye mooy tadbirullahi tabaraka wa taala lakk waaw li nga war a settantalal sa bopp war ko sonne yàlla defal la ko yee naaye yàlla nag moo solal Cheikh Tidiane taaj taaju mooy crown mooy mbaxana moom ñuy solal buur waaw mbaxanaam buur nangu mm-hmm. yàlla ko ko solal wa tënk wommat lahoo jëm ci moom Cheikh Tidiane kullal ala bépp teraanga bi inaanin ci lahab lahabu moo yore lahabu teraanga waaw xam nga lahab waaw moo lahab teraanga yàlla waaw fu mu ko jëmale fa la jëm waaw fasu teraanga yàlla hmm. Cheikh Tidiane yore lahab gi loolu la Cheikh Sukayri radiallahu taala anhu mu ne looloo tax fa tapa hmm. fa tapa kullul alamina fa tataa kullu alaalamina ruusahum ilayhi wa ma fihim fatan mutawaani waaw mu ne moo tax fa tataa wàccee sëggal dégg nga kullu alaalamina min def yëpp ruusahum seen bopp yi moo tax ñëpp sëgg seen bopp yi rek ne ko yaay kilifa gi noo bëggee rek noonu la ñoom ñëpp fa tataa wàccee fa tataa lunkal fa tanta suufeel kullul aalamin min def yëpp lu ësam seeni bopp ilayhi jëm ci Cheikh Tidiane wa ma fihim amul ci ñoom fetan waaye mu taanin ku yaaji a ñëpp ko nangul kum neex nangu nga ak naqadi waaw waaw ndax inaayatullaahi loxo bi yàlla lu mu bëgg mooy am mu neex la mu naqadi la moo yëkkati Cheikh Tidiane jox ko lahab ak fasu yëf yi radiallahu taala anhu فطأطأ كل العالمين رؤوسهم إليه وما فيهم فتى متواني فبشر بفتح كل من حاز ورده وبالورد وبالورد ولا وبالورد يبقى وبالورد كيخ من حوض wa rawdil jinaani fa bachir bégalal bi fatxin ci am fatx ci ouverture spirituelle fatx waaw fatxu kulla man képp koo xam ne xaasa làq na wirdahu wirdaw Cheikh wa bil wirdi ak ci root tabbi wala bil wirdi ak ci rootu min xawdin ci déeg ba xam ne mooy déegub yonantu ba bu yowmal qiyaamate nga xam ne ku ca naan dootoo dootoo mar wa rawdil jinaani ak toolu dërub aljanna waaw képp koo xam ne jis nga mu yore euh, daaw Cheikh Tidiane di ko wirde na nga ko bégal ne ko yow de ala fok mu neex la da nga am fatx mu naqadi la da nga am fatx yow de ala fok da nga naan ci xawdu yonent yàlla Muhammad bi ndax moo ko dig Cheikh Tidiane ala fokk da nga dem aljanna ndax yonentoo ko dig Cheikh Tidiane kenn du personnalisé nag ne diw sàngam nangam waaye Cheikh Tidiane nee na ku dugg ci sama wirde wi yonent moo ma dig lii ak lii ak lii pour yow bu ko defee nag dañuy wax ne képp ku dugg ci wirde wi am nga lii waaye kenn nag ci ñun du jóg rek naan man gannaaw dugg naa ci wirde am naa lii ndax loolu dafay tax muy al amnu min makrillah yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne ku wax laa ilaha te muy dëgg ci yow nga demal janna kenn du ko wax rek ne nag damay demal janna daal di ca dogu ndax dafay tax nga sol completu wóolu pexem yàlla te loolu dafa bokk ci charte yi Cheikh Tidiane wax ne nit ki war na ko sàmmwante mooy du wóolu pexem yàlla ndax yàlla nee na fala yamanu makra allahi illa al qawmu alxaasirun ñu perte rek ñooy sol completu wóolu pexem yàlla waaye képp koo xam ne jël na wirde wi ala fokk lana am lii dana am fatx mm-hmm. moo xam ci dundam la moo xam bu demee bay dee mm-hmm. dana root ci xawdu yonantu sallallahu alayhi wa sallam te foofa ku ca root dootoo texee di mm-hmm. moo tax ku ca root da nga root ci rawdul jinaane fa bashir bi fatxin kulla man xaaza wirdahu wa bil wird min xawdin wa rawdil jinaane wa inna lahu acla almaqaamaati manzilan wa inna lahu nayla arrida bi damaani wa inna lahu naka ñeel na Mawlana Cheikh Tidiane alal maqaamaati mm-hmm. gën jaa kawe ji maqaamaat yi aljanna yi manzilan ci wàccuwaay yowmal qiyaamati moom ak ay àndandoom ñoom ñëpp yonentu wax na leen ni ca illiina la ñuy dëkk al ala ni ko amee it ci wàllu wilaayatu ndax wa inna lahu ñeel na ko mm-hmm. alal maqaamaati gën jaa kawe ji maqaamaay wilaayatu manzilan ci wàccuwaay wa inna lahu naka ñeel na ko moom Cheikh Tidiane nayla rida am ngër mandéeg yàlla ndax wa ridwanun min allahi akbaru aljanna am na ziyadatu lilatuna ahsanul husna wa ziyadatu te wa ridwanullahi yonentu yàlla nee na akbaru moo gën moo ëpp aljanna waa aljanna buñ demee ba foog ne yëf yi jeex na yàlla ne leen xanaa duma leen dolli ne ko ñun kay fi ne nii liñ ama am dolleeku moom est-ce que mën na ci am mu wàccee ci ñoom ngërmandeem dootu leen sànjati mukk loolu daax aljana xam la <clears throat> aljana sax li ko tax a neex lim tudd kër yàlla rek la loolu ko tax a neex waaw ah, wow ak nekk gi fa nekk gi fa yonentu sallallahu alayhi nekk te tudd kër yàlla tax mu ne benn nit yàlla dañ ne ko sif lanal mu ne fiiha rasulullah sallallahu fa doy na sallallahu alayhi wa sallam wa inna lahu nayla rida bi damani huwa alxawsu man naadaahu labbaani daahu fanaadihi fanaadihi taxdaa bilmunaa wal amaani huwa moom alxawsu moom moo yore maqaam alxawsiya waaw waxuma la niti ordinaire yi waaye nitu yàlla yi ku ci gëlëm ci wilaayatu ku ci gëlëm ci sa wàllu sayru fillaahi moo lay xettali man naa daaw ku ko woo labbaam wuyu ni daahu ak wooteem kon nag fa naadi na nga ko woo taxdaa da nga cëttu da nga cëttoo bil mu naa ci mébét wala amaani lépp loo xam ne yaa ngi koy mébét nga ci wàllu yàlla ak lu moo lu mu rek dégg nga yegg waay ba mooy Seexu Tijaan yonentu sallallahu alayhi yàlla daf ne ko wa in istansarukum suñ leen sàkkoo dimbal fi diini ci diine fa aleykumun nasru na ngeen leen dimbale nitu yàlla yi tamit loolu lañu am Cheikh Tidiane mu ne waliyu duñ ko xam duñu ànd ak moom duñ ko liggéeyal lu dul pour yàlla ñoom yàlla rek lañu am moo tax képp koo xam ne it bëgg nga dara ci yàlla ah jaaral ci moom waaw jaaral ci moom benn waaye ba mu jàngee fas bay ñibbi sëriñam ne ko ma yeb la mu ne ko yeb ma ne ko boo demee ba jaaxle na nga def istixaasa ci waa jile fekk Cheikh Sidi Ahmed Tidiane la koy wax delloo mu ne ci gaal ànd ay mbokkam gaal ga daldi di toj ndax ngelaw lu leen fenn ba ñu wóolu ne ñoom ñëpp danañ dee mi ngi ci genn xottu gaal gi moom ak juróom-ñaari nit ñoom juróom-ñaar mm-hmm. nee ci saa mu xalaat li ko sëriñ ba waxoon mm-hmm. mu daal di def istixaasatu mm-hmm. nee na ay ngëmmantu ñëwal ko mu mel ni dafa jël Sidi Ahmed Tijaani taxawal ci wetam naan ko waxal yaa aliman bil altaaf najjinaa mimmaa naxaaf mm-hmm. nee na na ko la ko waxee rek dégg nga bi mu xoolee gis bato nekk ci seen kanam ñoom ñoom ñu dugg ci bato bi mu yóbbu ba ca tefes ba mu ñëwee Faas laajte wax leen li xew ndekete bés bi lool xewee mooy bi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane dëddoo àdduna jógee fi dellu ci boromam ba mu am juróom-ñaari waaw yaa aliman bil altaaf najjina mimma naxaaf képp ku koy wax doo dajeek loola jaaxal boo moom yàlla la ca fa inna lahu jaahan ladallahi kulla man bihi qad daa al mawla yafuz mu bëgg laa la nag istixaasa ak tawasul yëpp du ne Cheikh Tidiane ci boppam nga soxla waaye da ngay jaaree ci barkeem yàllaay def keneen mënut moo tax mu ne fay inna lahu ndax ñeel na ko moom Sidi Ahmed Tidiane jaahan daraja la dallahi fa yàlla kullu man képp koo xam ne qad daal mawla ñaan na yàlla bii ci darajaay mawlana Tidiane yafuz bimtinaani dana texe ci mayub yàlla ci xéwalu yàlla subhanahu wa tabaraka wa taala Mhm. moo tax mu ne fa yaa rabbi waaw way digle sangu ay sangu ba mu waxee mu ne man duma xaar ba xal ma njëkkee ñaan gi mm. fa yaa rabbi yaa mawlaaya aduuka sayidi bihi bihi jud bima arjuhu lii min amaani fa yaa rabbi yow sama borom yaa mawlaaya yow mi nga xam ne yaay sama mawla yaa méngoo sama mbir adduuka maa ngi lay ñaan sayidi yow sama sang bihi jut yàlla nag ma may ci barkeb Cheikh Tidiane bi ma arjoohu li ma yaakaar nga xam danaa ko yaakaar li ñëw sama bopp min amaanin ci kóllëre min amaanin ci sécurité min amaanin ci muslaay min amaanin ci garanti lépp lu ma ci yaakaaral sama bopp yàlla moo ko may ci barke Mawlana Tidiane radiyallahu taala anhu wa xud bi yadi wa xud bi yadi wandur ilaya bi raxmatin wa jut li bi gufraanin fa inni faani wa inni muqirun wa inni muqirun billadi kasabat yadi wa xaashaaka tubqiini bi qaydi ani wa xud yàlla na nga jàpp yow sama borom bi yadi ci sama loxo wanzur ilayya yal nag ma xool bi rahmatin ci yërmande yal nag ma xoolee sa bëtu bi yërmande bu rëy bi kaar wajut li yal nag ma may bi xufraanin njëggal fa inni naka man de fa inni ya naka man faanin aji jeex la maanaam jeex naa ci Cheikh Tidiane jeex naa maa ngi nii dee ngi nii may jeex si war a dajeeg yow te bu ma dajeeg yow nag soxla naa sa yërmande mm-hmm. su ma dajeeg yow soxla naa sa njëggal mm-hmm. wala maa ngi nii jeex naa tàkk mm-hmm. dégg nga boo ma yërëmu du ma mën a dellu des te nitu nitu yàlla yi buñ sayroo ba jeex ci yàlla dañuy ñaan des ci yàlla kon nag xool ma sa bëtu yërmande bi ma des ci yow wo inni muqirrun billadi kasabat yadi wa xachaaka tubqiini bi qaydi yaani wa inni naka man muqirrun aji saxal la aji reconnaître la billadi kasabat yadi li sama loxo fàggu bàkkaar yi ma def yépp saxal naa nangu naa ko reconnaître naa ko wa jomb na ci yow nag wa xachaaka jomb na ci yow tubqiini nga may desal bi qaydiya ci sama jëngi bàkkaar aanin may aji jànkuwante yow di ëpp nga waxaasaaka ëpp nga tukki ni nga way seetaan ba dima desol may des bi xay diye ci sama jëng bakkaar naa ba bakkaar yi mujj nekk jëng ba mënatuma dox jëm ci yow dindi sama jëng yi sama borom waaw ah, man de nu ma mën mel xam naa ne um, nangu naa ko loo ma defit xam naa ne mérité naa ko waaye bul ma xool xoolee xoolal sa yërmande ci man lii nag nga def ko bi jaahi rasulillahi ci barke yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam jaddit tijaani bi jaahi rasulillahi jaddit tijaani alayhi salaamullahi kulla awaani jaahi rasulillahi nga def ko ci daraja yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam jaddit tijaani kii maami cheikh sidi ahmad tijaani alayhi yàlla nekk ci yonentu salallahu alayhi wa sallam moo ki saxaabaam ak i ñooñam te ñooñam ci la Cheikh Tidiane bokk boole ñu ci ñun ñëpp salaamullahi jàmm yàlla kulla awaani jamono june xaq qadrihi wa miqdaarihi al-aziim wa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil aalamiin maa sha allah